c'est gaaw de. dégg nga wax man nag taalibe ah Serigne Abdou Baaxe Mbacke naa koo tux. ah ma ba leen rek rek pour tey rek. la ngeen ma ko eh, ma ne leen man man. Ah. taalibe Cheikh Abdou Baaxe Mbacke laa. Mhm. ba ca gin gi neew. macha man rus naa tux cigarette balaa asantumaa leneen. Mhm. ah. xam naa ni de bés bu ma amoon lu may xeeñ wala ma am nu ma mel man nga xam ne sëñ Abdou Baaxe heure bu ko neex la may convoqué mm-hmm. ah bu ma ñëwee naa rus nga am gàcce naa am gàcce de doomam yii nga xam ne ah? mm. koy gën a nekk nandite mm. kenn ku leen gën a nekk naan sëñ Abdou Waddu ak ñoom Serigne Saliou waaye yow ñooñu boo jàkkaarloog ñoom looy wax man dama am kilifa am sëriñ am ay xarit yu may wax dëgg. ay melukaan ak ni nga mel sax ci dëkk bi nag non non mais dama xoola hmm? ñoom xa xamuñu. Hmm. ñiy jël whisky dëgg xamuñu leen. ñiy naw ñooy jël whisky. léegi man bu ñu ma ko man du ma mën ay reer daf may jàpp ni may reetaane ni noonu laa reetaane bu ñu ma ko <laughs> xam ne rek. benn drogue laay jël. muy kafe Touba. kafe Touba bu dëgër bi. waaw ak ceeb bu weex ak bëccëg bi. ak suul. à part loolu moo ci xam naa ne moom sa drogue la moom boo jël da ngay da ngay da ngay màndi. vraiment yàlla baax na yàlla eh, bëri na si dara en tout cas nañ nañ bàyyi xel bu baax si wàllum corruption bi surtout. ah surtout surtout jamono jii sax nga xamante ne dem ba soppi ko. léegi da ngay dem jour bon ñii naan ay journaliste la ngay tasanteel doyen dañuy dem tey communiqué ya nekku ñëpp am doole. waaw nga xol journaliste yi beri, li nga prévoiroon matawoo ko nga jël jox leen fu ñu sét ku nekk am deux mille da nga ne kon dañuy traiter information à notre manière. waaw déedéet. c' est pas normal man de ba ma nekk dan na mm. ki per jëm mais lu ma mun waat de man. Mm. Doudou bal kenn mosuma korom mm. jëru ko sax. déggoo ma di man. ba ma nekk ki daan naa dem ci stade yu ñu may jox paas. Mhm. nawetaan. Ah daan naa dem di rang pér jëm di signé naan kan moo yore pér jëm yi. lépp def naa ko. waaye mun naa waat de leen. Mhm. corruption kenn mosuma koo def maanaam kaay ma fay la lii. Mhm. nga def lii. si wàllu maj métier journalisme mosuma koo def. ah gis nañ ko ñu ñu beneen bi la gars yi doon def. ñu bëri gars yi kontaan si ñoom di leen di leen man kenn mosuma envoyé ah, te la ma ah. xeex ma ne ma ne ma ne ma ne xam nga man mm. waa diaspora bi problème bi ma njëkk am ak ñoom mooy bi ma leen nee vous avez fii mm. da ngeen daw bàyyi fi sénégalais yi bàyyi fi sénégalais yi ba pare di ñu pousser pour ñu xeex duñ ko def xoolal gars yi ne et c'est un élément incontrôlable kii ki ma koy wax benn responsable Pastef bu mag la mm. boo xam ne yooyu si yooyu lay dox mooy ñuy war a envoyé ak ñuy warul envoyé mu ne ma yow gars yi duñ la envoyé parce du dëng bëri ah! yaa ne gars yi ils fii arrangé woo leen daal waaye ah, léegi loolu daf la très avancé xam nga man yaa ngi sant sëriñ Touba may waxtaan ak benn waay démb. Hmm. am lu may wax loolu sax naa si du ma sa dellu si mu ne ma la ngay wax xamoo ci dara ma ne ko lu tax nga wax xamoo ci dara mu ne ma danga see xamul dara. ma ne yow man li may wax nii dama koo yore dama yor école. Mm-hmm. de formation dama doon wax ci école. Mm-hmm. de formation mu ne ci journalisme. Mm-hmm. xam nga mooy saagakat yooyu rek. Ah. yow yemal ci journaliste waaye yow xamoo leneen ba pare ma ne ko sëñ bi je suis désolé man dama yor école. voilà mhm. mun yëpp. ne pat xam sax xam li nga xam yàlla baax na. bàyyi leen bu ngeen xamul nit rek nekk ci moom.